faakiyatun ay payteef kasiratun yu ay min haa ci yooye tàkku la ngeen di lekk mu tekki ne innal mujrimina naka bàcc naka naka way bokkaalekat yi naka way kaccoor ya innal mujrimina naka kaccoor yi fii asaabi jahannama aji nekk ci mësa bëggalam jahannama de xaali doona mi ñu way sax laa yaftor dog an hu walis den bëggal duñ ko xeefal ci seen kaw mukk mu ne ñi nga xam ne nag ñooy safaanab jullit ña ñu baax ña mooy ñi nga xam ne ñoom ñi mooy mujrimo ne mooy kàccoor ya mooy mooy mooy criminel ya de ñi nga xam ne ay musrikoon ñooñu dee dañuy dugg mbugalam jahannama te dañ fay sax te mbugal ma dañ ko xayfal mukk ci ñoom de waxum te ñoom fii ci biir safara mobilisé way naagu lañ yërmande yàlla de buñ dëgg dañuy naagu yërmande yàlla yàlla li muy bëri bëri yërmande waa safara ñoom naagu dañ ci yërmande ji dañ ci am wa ma salam naa bu ne wa ma salam naahum tooñuñ leen walakin li fi nekk kaanu nekkoon nañ hum ñoom as salimun ñu salim di way tooñ seen bopp de mais ne da nga ne ah xanaa yàlla kon da ngaa tooñ ñi nga gis wa da nga leen tooñ mu ne déedéet mais yàlla tooñu ma leen seen bakkaar yi ñoo tooñ seen bopp de ci seen i bakkaar de walakin kaano nekk hum ñoo asaalimi ñoo way tooñ ñoo tooñ seen bopp ci ay bakkaar war naa daw mu xoo yaa maaliku war naa daw ñu xoo ñoo waa safara yaa maaliku yow maalik maalik mooy malaakam safara mi bakka ndeef safara maalik la tudd ba aljanna ma nga tudd ridwaan ñu xoo nga xam ne mooy malaaka yi nga xam ne mooy kilifa ak safara ga war nga wax ne mooy jëw ni ci safara mooy safara ne ko nag pour yàlla ray leen ñu ne maalik lii ñu nekkee daal ñu dee sax moo ñu gënal te foofa dee xewi wa naaraw ñu hoo yaa malik yow malik li yax dana faat xaal na ci rabbuka borom sa sa borom waxal sa borom mu rey ndax li mu ñuy mbugal nii safara mi ñu dee sa moo ko gën de foofa rek la nit leen doomu aadama te xamee dee àddina moom kenn du bëgg a dee màggatam téeméer as boo ko laaj mu ne fa ñëpp fi bëgg a yàgg te yàgg bi xamatu fu mu dàpp xanaa yàlla kay mooy sa seet ba mu neex ko rek moo xam ne fii la mën a mu xamale ko fa waaye boo fa amoon téeméer as te jàng ko bëgg a yàggaat dañuy xoo Malik ba keneen ne ko yow si borom rey ñu noppalu de xaala wax Malik ne leen innakum naka yéen maa ki soona waaye sax ngeen ci biir safara de waxuma du ngeen dee de fii dee xewi na safara ngeen sax mbugal mi ci ngeen sax de wala laqad jiinaakum dikkal nañ leen bi ñu ci dëgg indi lañu dëgg te mooy yonent yi indi lañu dëgg mooy alquran ak mboolem yonent yi dëgg la ñu indi woon walakin li fi nekk aksarakum kan jaa bari seen li laq ci dëgg kaari hoone way sib lañ ko loolu moo ëpp ci nit ñi nag lépp ci doomu de dëgg moom waxuñ dara dara dara dara waaw loolu moo leen gënal dëgg de ma ne la ak gën jaabari seen lil xaq ci dëgg kaari way sib am abramo oh, boo na ndax dañoo dañoo dañoo nar am ran mbir ndax boobu dañoo nar am mbir pexeel yonent bi sallallahu alayhi wasallam waa Makka dañoo am mbir muñ nas de bu ko fa inaa naka ñun yàlla moo way raw lañ way doxal lañ suñu doxal de yàlla dafa ne al al amal min jinsil amal comme comme mubri moom nag yàlla daal di moom jëfandikoo mubri moom ne waaye yàlla moom du dox dox doxee pese fay dogal rek yàlla ne may leen wàcc ñu pexe ba pare man ma dogal li ma bëgg a dogal de moo tax pexekat yi dañuy sonn pexe pexe ba foo ne ñoom ñoo ci nekk rek yàlla daal di xëcc benn fiil rek mu seen faxam yëpp dërës de yëpp tëpp seen ko moo tax dox moo tax fexe doxut doomu aadama li koy dindi di koy gindi rek alxuraan war nañu ko mooy ihdina siraatal mustaqim alhidaay jub rek moo lay may yam waaye pexe yëpp boo ko fexee bu la bu la jëriñee tey ba léegi moo lay indil problème fay mubri ma ne way way dogal lañ de ñu ñooy xati dëgg ñooy xati mbir yi am yaxsibuna waa dañoo jortu ñoom ba yëfar yi ana naka noonu yàlla laa nas moo dégguñ sirrahum seen ndéey ya a sirrahum seen mbóot ya mooy lañ lëpp ci seen xol ya wa naj waa ak seen i ndéey de xanaa yàlla déggul liñ fas ci seen xol yi ak li ñuy dee de sirrahum mooy la nga xam ne jaam bi diggante mag bi boromam rek la ci waxi xoolam la ko wax nga xam ne waxu ko kenn naj waaw na mooy lam déey nga xam ne xoola comme xawt ne ko na dañuy déey de yàlla ne lépp laa xam yàlla maa ngi yàlla maa dégg naa la nga xam ne moom la seen xol yi seen seen xel yaay wax dégg na la ñuy ken kooku mënu ko kooku kenn mënu koo kenn mënu koo kenn mënu koo raw de bu ma ra yàlla rek mën a contrôler àddina moom rek mën a contrôler àddina bi moom rek moo nekk moo nekk raqib de waaye ku dul moom mënoo rek mënoo mu raxab àddina bi ndax loo muus muus muus man ngaa ñagal béy ñagal xar ñagal nag yooyu man waaye doomu aadama moom neexut a ñagal loo ñagee mu dikk ñag ko fet fet fa porom dool ba dugg rek de yàlla rek a ñagal te ñag bi mu koy ñagay mooy taqwa rek boo amul taqwa moom musiba bu nekk mën na ko def ci kaw suuf si gëm àllaaxira gëm dekk rek mooy tax doomu aadama euh, du tukkal de moo tax buur ne am yax si jortu ana naka ñun yàlla laa nas moo dégg tiñ sirrahum seen mbóot wan nañu ak seen i déey de balee yàlla ne ah kay dégg naa ko de luñ wax ci kaw ak luñ wax ci suuf yam ci man yàlla lañ fas la nga nar yow mi wate sa la nga yéene ka nga yéene sama naa ko de bale yàlla dégg naa seen déye am yaxsiboona doo teg balaa a kay yàlla dégg naa ko fa xémuñ ko sax di wa rusul naa ndaw ya mooy malaaka yiy bind la di fa ñoom yëpp ñu ngay bind man man rek doyoon naa seede ndax mu ñu waaye nag ay amal ay malaaka ay téema ay journaliste ne ña nga xam di bind de te luñ wax ñu bind ko luñ def ñu bind ko kon mënuñ maa raw yàlla ne wa rasul naa bale ah kay dégg naa seen di ak seen wax ya wa rasul naa suñ yonent suñ ndaw ya te mooy malaaka yi wattu la dayhim fa ñoom jaam ya yektu wan dañ bind seen i wax ak seen i jëf de xul waxal yow muhammad in kaana dem nekk na li rahmaani ñeexal bur bu ñu wax rahmaan mooy yàlla wala dun doom su fekkee yàlla xam na doom fa ana man awalul abidina maay kii njëkk a jaamu doom yàlla ja de yàlla ni fekk yàlla am na doom maay kii ko a jaamu de kon doom fali ma yàlla amut doom yàlla ne Muhammad fekkoon yàlla moo am na doom konoon Muhammad moo koy njëkk mooy njëkk a jaamu doom yàlla ja wala fekkoon am na doom de man man yàlla man Muhammad maay njël bi nag doom jaamu yàlla de bëgguma doom yàlla de doon yàlla amut doom de yàlla amut doom soxlawut doom bu doyewu ko dara ndax yàlla du tële du lottu du xuutee te doom ñi koy soxla mooy jaam yi nga xam ne dañoo bëgg ku leen wéttale dañuy wéet mooy jaam yi nga xam ne dañuy bëgg ku leen dimbalee buñ màggatee seen dimbali wala buñ fa nekkatul la ñoon def seen doom yi def ko de looloo tax di am soxla doom yàlla mi nga xam ne moom du feebar du lottu du tëw du xuutee te du màggat du dee kooku lu may doxee doom kooku ñëpp ay jaamam rek la ñuy doon de faanaa man awalul abidina benn kii jaamu yàlla ñuy jaamu yàlla de kon yonent bi mooy awalul muslimina waaye mooy awalul mooy awalul abidina yi jaamu yàlla yëpp yonent yàlla man mooy seen imaam mooy seen ilimaan de waxal subhaana rabbi subhaan tudd ma sell ak borom asamaan yi juróom yaar wal ardi suuf yi juróom yaar ko arsi yi borom xaras amma yesimun wali leen koy melal ci ay ay doome ki bokkaale de yàlla ne kawe na subhaana jomb na moom rabbu samaawaati ki nga xam ne rabbul arsi koy melal ci ay doome ki bokkaale de fasarhum yàlla ne yonti fasarhum bàyyi leen rek ñoom xéefar yaqoodoo ñu xuus ci seen caaxaan yi waaye yàlla boo ñuy fay ci àddina ataa yu laa ko bañ daje yow moom seen seen bés ba àlla si bés ba nga xam ne yoo xam ne moom la de mu ne bàyyi rek ñu nekk seen caaxaan yi bàyyi nit ñi bàyyi nit ñi ñu nekk seen caaxaan yi seen coow lu bari rek di fo rek foog ne àddina ñoom it ful fo buñ fooyee ci ba doyal ba bés bañ ba de ba dina ñëw ba ñu dig ba ñaari bés la bés penc ak bésab dee de boo nekkee ci àddina di foofu ba nga xamee ne bés bañ la digaloon ñëw na mooy bés nga xam ne yàlla dig na ko ñëpp te mooy bésab dee ndax ko am josab juddu xam nga bésab dee de xam bésab dekki de moo tax mu ne salaamu alayhi ma wa yawma amatu wa yawma ubasu hayyan ñetti bés la bésab juddu waaw ak bésab dee ak bésab dekki ñetti bés yooyu jaam yëpp ko xam de moo ta mu ne bàyyi leen rek ñuy foo ak caaxaan ba nga xam ne daje nañ seen bés bañ leen dig de te mooy àllaaxira de woo wala si yàlla mooy buur ba nga xam ne fi samaay ci asamaan si ilaahun moo fay yàlla wa fil ardi ci wa fil ardi mooy yàlla de yàlla mooy ala mooy yàllay waa asamaan mooy yàllay waa suuf du ñaari yàlla yàlla ma ca asamaan moo nekk ci waa moo nekk suuf kon yàlla jan yàlla moo xam asamaan ak suuf de yàlla mooy yàlla mooy buur bi nga xam ne mooy yàlla ci asamaan mooy yàlla ci suuf it de woo moom alhakim mooy aji xereñ moom doog mooy ko xereñ yëf yëpp de lépp li ci xereñ al alim mooy aja xam kon ñaare xam la yàlla ko xereñ la ko xam la de moo tax mën a defal moo xam eh, di jëriñ jaam yi de moo tax muy doxal mbiri jaam yi ndax dafa te ci xikma la koy doxee ak xel mu de wal hakimu mooy aja xereñ ja ci doxal mbiri jaam yi al alim mooy aja xam seen mbir de wa taba wa tabaraka barkeel na tabaraka moo alhamdu daanaka benn lay mooy sant yàlla tag yi ñu tege yàlla la bokk yàlla yi bëggee kañu tabaaraka li jëfandikoo wala mu jëfandikoo alhamdu sant yàlla léeg-léeg bu reyee noon yi daal di sant yàlla de léeg-léeg it waaxal janna bu ñu xamee xéewal sant yàlla tabaaraka nag moom la yàlla yi bàkkoo yàlla ne wa tabaaraka barkeel na ëllëg si buur ba nga xam ne lahoo ñaal na ko mulku samaawaati moomeel ak asamaan ak juróom-yaar wala ak suuf juróom-yaar de mu ne buur bi nga xam ne moo mooy nguur ak asamaan ak suuf moo bu bëri barkeel de tabaraka mooy koo xam ne ku bari yiw la ku bari njariñ koo xam ne ay xéewalam dog de buur boobu di mali di di mu la nga xam ne moo xam war a ak suuf kooku ku bëri barke la waa bay seen diggante ki ne moom moom asamaan yi juróom moom suuf yi yaar di te nekk seen diggante moo ko moom de waaye dafoo moom dong xel mu saati xam-xama bis taxaw de yàlla buur boobu moom rek xam bis ci kañ lay taxaw kooku yàlla rek ko xam de wayu léegi ci tur jamono la ñeen dellu yéen jaam yi de ci moo buur boobu la ñeen dellu yéen jaam yëpp wala yamliku moom tit jëriñ tit alla si ne ña nga xam ne ya doon yeneen jami yi ci dul ci dul yàlla safaatam tinu de te yàlla yi ngeen di jaamu wala ñi ngeen di jaamu te duñ yàlla ay xëram yi ngeen di bokkaale ak yi ngeen di bokkaale yàlla wala xëra amuñ leen fa benn njëriñ mun ngeen a defal mun yen a ramu ci yàlla de mooy xam jaamu ñen yàlla ñu ngi wàcc Nadri ibnu Haris ak mbooloo maa ñoom ñu wax ne ñu ne dañoo wax Muhammad ne ko sallallahu alayhi wa sallam su fekkee ne Muhammad li wax dëgg la ñun kon ñun ñoo méngoo malaaka yi te malaaka yi ñoo gën a xam ci ci ci Muhammad sallallahu yàlla wàcce laa ji de yéen jaamu ci duñ mu setti ca nag Iisaa ak Usayru ak malaaka yi ñoom danañ ramu waaye nag yéen jaamu ci duñ mooy xërëm ya te duñ ñooñu bu àllaaxira amuñu leen a xam ne mënuñu leen a xam ci yàlla am rab mu de bu ngeen tinu de bay bay dem bay dem aljana nga ne ko faaw mu ne illa man shahida moom la settee ci la ma la set ci la settee xeesaak xoseeroog malaaka yi baax yi malaaka yi lu mu karamoon ndax ñoom ñëpp danañu rab mu de mu ne illa man shahida dara ka seede na bil xaq ci diine dëgg de lu may ka xam ne nag moom seede na diine yàgg mooy nga xam ne <coughs> ñoo wax la ilaha illallah ni ko xeesaa ñi nga xam ne gëm nañ yàlla kenn ak yàlla ga de ñooñu dañu ram moom te ñoom yaxlamuuna xam nañ loolu de wala wa illaa man shahida makasa bil xaq ci diine yàlla jow te yaxlamuuna xam nañ ne xam la laa ila mooy laa ilaa ila mooy Isa wala in saaltahum wala in dem laajoon nga leen ñoom waa Makka man xalaqahum ana kan moo leen bind la na danañu wax allahu yàlla mu ne nit ñi que li ñuy wed wed yàlla li ñuy dof dof boo leen laajoon ku leen bind wax ne ñoo bind seen bopp dañuy wax ne yàlla leen bind de ndax loolu mel toll fa ana yuufakuuna kon naka la ñeen wëlbatee na walis topp yàlla de wa ak waxam ja moom muhammad sallallahu alayhi wa sallama ñu fa mel ni yàlla fa indi yoon sa bi wa sallama dafa bëgg ñaxtu ci yàlla mi warama xam na ñoo ne wax yi ñu koy yàlla ci waxee Isaa ja ci Isaa lañ koy delloo ñu wax ak wax ne yaa rabbi inna awla qawmu ibnu abbas ak ñoom dañoo wax ne wax ji ci Muhammad la dellu Muhammad mooy tawat boromam mu wa qiili ak waxam ci moom sallallahu alayhi wa sallam inna haulaay naka gaay mooy waa Makka yi xawmun nit lañ yaay mën de waa Makka yi gëmuñ duñ de wedd nañ fas fa ko fas ba dëddul anu walis leen mais ni yoon ba mu xootee ba nga xam ne ba ñàkk yaakaar ci waa Makka <coughs> ñu sonal ko mu ne yàlla daal sama gaay yi daal duñ gëm sama mbokk yi nangu ñoo gëm de yàlla ne ko fas fa anhum doddu leen wan leen gannaaw rek waxul te nga wax salaamun jàmm de te nga wax jàmm fa sawfa ya'lamuuna xal sef na ñoo xam tëkkule foofu laay mu ne kon na nga wax ba yoon ti waxee yoon ti ñi sama mbokk yi gëmatuñ yàlla ne ko wan doddu leen wan leen naaw dem ci beneen suuf soo xam ne danga fa dana dem mooy nga gàddaay dem ba jóg ci leen fi dangaa tuba te nga wax jàmm rek ñoom xalsef nañu xam waa Màkka de aay jooju ñu ne booba laay jaasi ji wàccagut ba laay jaasi wàcce na la wàcc moom fa li laay ji de yonent ba xeex ak ñoom de waaye bu njëkk nag booba lu xare digal gu digal gu mu xare su boobaa bu ñu weddee yàlla rek fa leen ni yàlla fa leen waa na ngeen war gannaaw rek te nga wax jàmm dem wàcc leen de seeti ñeneen balaay balaay jaasi ja wàccee nag ya digal ko aussi fi bi annahum zulimu yaa digal leen ñu xeex nag booba la moo fali laay farikat bi loola wax sortu doxaan saaru saaru saxata ngoog saaru saxar la ko yàlla tuddee saxar doxaan doxaan safara mooy mooy saxar boo demee ci yenn ndewi naar yi comme cigarette bi doxaan lañ ko tuddee doxaan dañ ñu ngi tox ndax du saxar la waaw ah, ndax ñoom dañuy jaay wax dañ koy tuddee doxaan ah mooy li ñuy tox rek waaye saar bi yàlla na ko tuddee doxaan safar mu ah, ngi ko doxee saxar dana ko wax li tax ma ko ci awaam yi la bokk ah, yema makkiyatun saaru makka la ci saari makka la bokk taay man ma bokk li ñuy wax seen programme mooy dañuy saxal tawhid saxal risaal ak nubuwatu waaye dañuy saxal dekki bu yaasu ndax fondation fondement yooyu mooy fondement wu diine ji nga xam ne bu ko jaam bi gëmee bu dëgëree rek ci lay mën a taxawale ibaada yi ci des ak yu baax yëpp ndax yooyu bu ci feebalee rek fondation yooyu bu feebalee bu iman gi bu amee bu amee doxul iman rek jaam bi amul tawhid bu wér gëmul nubuwatu ko a risaala wala mu sikki sàkk ci àllaaxira suba pour mu jëf jëf ju baax du ko yomb ndax jëf ju baax ñi gëm rek ñoom la mën a yomb ndax julli yi ñu julli karang-karangee ko war julli buñ gëmutoon ne danañ dekki daanaka da ngay gis ne amul amul njëriñ ci àddina waaw ndax da ngay gis ne kon da ngay dem ba yàgg rek nga jullee ko xool ak xiif ba mu yàgg rek nga xiifaat kon ñu dekkee gëmoo la dekki moo tax fondation yi la alxuraan dëggal ba ñu pas-pas boobu dëgëree nag bu góor bi nag soo ko mën a góorgóorlu ca ya ca des bismillahi rahmaan wa moom saar wi sabxan wa sabxan wa am na ñeneen juróom ñaar juróom fukki laay juróom ñaar wala juróom fukki laay juróom ñeent dañ caa wute ah, téere bi day indi li ma kaat ya li yooyu boo <coughs> ci firi mi <coughs> bismillahi rahmaani rahim mooy jumla jooju ngay ubbee saar yëpp yéen ci borom xam-xam yi jàpp ne ci ismillahi al la wala moom la walla jege na ko wala ci la bokk ndax ismilaahil azam it nekkul mel ni mbir moo xam ne dañuy wax lii rek la la bokk dafa bari kon bismillaahi rahmaani rahiim mi ci la bokk kon tax yonent bi nee na dara doxut diggante bismillaahi rahmaani ak ismilaahil azam bi ñuy teer lu may la dox diggante bët ak weex weex ak bët ak ñuul ñuul ba xam nga kon jege nañ kon ci la bokk moom loola moom la te boo ko defee boo ko defee ismulaay boo ko defee muy moom te boo ko defee bismillah boo ko defee boo sa ismulaay asam léegi ko sikkaree ko jàppoon di ko ko di ko na nga ko tollale rek noonu la tur yi toll kon moom eh, yu bala nga caa xam loolu nag foog ñu nokkatu la ci lekk ci sa xaalis bu bëri bëri waaye benn la boo boo xamee lépp moom boo ci tur bi daal mi ngi ci yow mi yow mi ko yore loo bëgg mu doon mu doon bismillahi rahmaani rahim yi mooy commencé naa wax ci tur yàlla mi yërëm ñëpp ci àddina di leen jox ay xéewal arrahim yi di teral xejam yi ca ca àlaxira amiin firi woon nañ ko ci ruusul muqaatami jaahiya la bokk ñu ne ismulaay moom itam ismulaay asam la wal kitaabi gi ñàkk téere ba al mubin bari bari aji bir gi ñàkk téere ba nga xam ne bu leer nañ la téere alquran mooy ki leeral nit ñi lu ñu ci mbirum xalaal ak xaraam yëpp alquran leeral na ko ak xatte wa inna naka nun yàlla anzalnaahu wàccee nañ ko moom alquran ji fii léegi ci ci guddi mubaaraka di guddi kuñ barkeel ñu ne guddi ga mooy laylatul qadr ci sahrul mubaarak la ñu ne mooy laylatul qadr fii la yàlla wax ne wàcc inna ansalnaahu dambir ja mooy ma nga jël ca téere ba téere bu leer boobu ñu ngi ko wàccee ci laylatul qadr yi ci guddi ci laylatul mubaarakati ci guddi ñu ne laylatul qadr la nga xam ne moom ci lañ nekk ci weeru koor ñu ne ci la yàlla wàccee alquran jumlatan mu bàyyi ko ca lawhul mahfuz ila samai dunya fi baytil izza topp jibril nag di ko wàccee mu najjaman di ko wàccee xasabal waqa'i ci xew-xew yi xew ci mag ci yonent bi lu tolloog ñaar fukki at ak ñett am na ñu ne loolu mooy laylatul qadr ñu ne laylatul mubarak am na ñu ne yàlla alqa ne na laylatul laylatul mubaraka ñu ne mooy laylatu guddig nisfu sobaan la guddig nisfu sobaan mooy bu barax lu xaajee teñ koy xoor xoor ak ngatt ga Aïcha ne na radiyallahu taala anhu ne na yonent bi ne na inna allaha la tabaraka inna allaha taala tabaraka wa taala yanzilu laylata nisfi min as-soban ila samai dunia yàlla guddig nisfu subaan ku nekk dafay yàlla fay wàcc tanazulaati rahmatihi lañ ca nam yàlla yéegul bay wàcc wàccut bay yéeg ndax ku yéeg yaay wàcc ku wàcc yaay yéeg yàlla yéegul wàccut waaye waxin la yan maa ja day yéeg day wàcc ba ci ci guddig laylatul nisfu subaan ci guddig xaaju baraxlu ba ci asamaan su jege si nit mu jéggal lu ci limab kawari xar yi ak bani ko la bi mu ci mu jege mu ci de yàlla fay jegal doomu aadama yi lim boo xam ne ni kawari xar yi toll ci àddina ak kawari xaj yi loolu la jégal lim lim bu yàlla ko jégal nit ci ay bakkaar guddi si subaan moo tax ñu am ñu borom xam-xam yi yi nga xam ne <coughs> dañuy gastu yooya di ci def ay ñaan ñu ne bis la moo ñu ne guddi googu fiyaa yufraqu kullu amrin hakimin ci lay lay dogalee mbir yi muy dogal ci at mi loolu ñu ne nisfu la de waaye fii laaya ji lim war lim tegtalee teel laylatul xadr tegtal ko mooy mang ca na ma laylatul xadr waaye fi kat bi ne la am na ñu ne leen nisfu sabaan la de waaye li gën a wér mooy laylatul la ndax màkk ndax gën a alquran yàlla nga ko ci guddi laylatul xadr lépp muy ci wala boog laylatul qadr mooy ibtidaa nusulihi ke lañ tombali ji wàcc de ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam saar na jigu di de waaye ku lool moo ci nekk moo tax na inaa na wa inaa naka nun yàlla ansal naa wàcce nañ alquran fi laylatin mubarakatin ci guddi guñ barkeel inaa naka nun yàlla ku naa nekk nañ mun sirani way xuppe de fiihaa ci guddi googu ak guddi gu barkeel googu yufraxu la ñuy dañuy teqale kullu hamrin hakim yëpp loolu min xaraña day ci la yàlla dogal mu ne guddi googu ci la yàlla bind ca umul kitaab ci laylatul qadr lépp lu ci guddi gu laylatul qadr ci yàlla bind dogal lépp lu fasoo doo nekk huwa kaayinun ci xatma moo xam xay la ci yiw la ak xay ci wërsëg ak digi jaami de bu laylatul qadr dikkee guddi googu ci la yàlla lim génnee ci yàlla ñu ko décret bi muy dogal li mu dogal dogal ci at mi ci yiw ak xay ci wàcc jaam yi ak wërsëg jaam yi ak seen digg yi ñi war a jeexal ak ñi war a fekkee déwén lépp xaat moom lañ koy lañ koy lañ koy dogal ba ci xujjaaj yi xaji màkka sax guddig leen xatala ko yàlla dogal ñu war a dem màkka dañuy wax ne diw sax diw dana xaji diw dana xaji loolu mooy guddig leetu xadra a ñeneen ñi déedéet guddi kooku mooy guddi nisfu sabaan ni ma ko waxoon mooy guddi nisfu sabaan de fiihaa yufraqu kullu amrin ñi sànna de ci la ñu foolee ñuy dund ak way deeñi ci sanad am ne yonent nee na qaala tuqta'ul ajalu min su'baan ila su'baan imam baxaw yi baxaw yi ci sanad ne yonent bi nee na ci guddi nisfu sabaan la ci baraxloog baraxlu xataa waaju wa nar jabar sax wala muy xam doom ak ku war a faatu yëpp ci guddi googu lañ koy def yàlla ci lay xattee dogal yëpp ci guddi ni su mu daal koy jox nag boromam mu daal di koy jox seeni borom nag waaye guddi gi koy joxe seeni borom nag mooy guddi laylatul qadr ci la ko jox malaaka yi ñu pour ñu wéyal ko mi ngi noonu ñaari guddi yooyu daal borom xam-xam werante nañ ci waaye guddi ñaari guddi yu màgg lañ dee leelu xadara moo gën guddi yëpp moo tax mu ne buur ne fiyaa ci moom ci guddi googu yufraxu la ñuy tëddalee la ñuy xàttee kullu amrin hakim yëpp mbir mu ñu xarañale ci lañ koy dogal amran amran mbir muy mbir muy dogal mi ne nawtika fi ñun de te mbir moom mooy nekk loo xam ne ku tukkee ci ñun yàlla innaa naka noonu yàlla ku naa nekk nañ mursaliin di way xebal suñuy ndaw de mooy yonent yàlla moom sallallaahu alayhi wa sallam ak ñu yi rek te yonent yàlla moom sallallaahu mooy yërmaane ji mag ji de moo tax ma maa tax ma ne indi naa innaa ku naa naka ne mursaliin di way xebal yonent yi Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam rahmatan ngir muy yërëm mi rabbikum tukkee sa innahu naka moom buur boobu wa moom dong as-sami mooy aji dégg seeni wax al-alim mooy aji xam seeni jëf rabbi samawati mooy borom a yi juróom yaar wala ar rek suufi juróom yaar wa bayna ak seen ak wa bayna seen diggante in kuntum nem nekk ngeen muuxine di way xoolu fekkee xoolu ngeen loolu yàlla mooy ke xam ne moom moom asamaan suuf si ak ja diggante ba kooku fekkee am ngeen yaqin ci lool de loolu am na yaqin la ci am laa ilaha deet buur illaa huwa ndare moom moom rek mooy yàlla de yuhi dana mu dundal comme na ma dundal o yumitu dana mu rey comme na ma rey de rabbukum koo koy seen borom rab wa rabbu abaayikum mooy seen borom yi maam bàyyee de al awwaliin ñi di way jiitu yàlla moom moo leen moom yéen ñi yéen ñi yéen ñi nekk tey yéen ñi juddu tey yàlla mooy seen borom seen maam ya deewoon nit yàlla leen moomoon de yéen a bokk moom borom kooku meen borom mooy dundal ñi ko soob di rey ñi ko soob kooku mooy seen borom te mooy seen borom bàyyee jiitu woon wa rabbu aabaa'ikum ay seen borom bàyyi alaw yéen jiitu de bal buur ne bal bahil xam ñoom waa Makka fi sakki nekk na ci aji sikki sàkk ci alquran li am ba nit ñi fa am ñoo xam ne ñoo yi dañ koo sikki sàkk fi sakkin ci sikki sàkk alquran yàlla xamal ñi ci de dañuy nekk rek di ci alquran di fo moo tax ñu nekk yi caaxaan de buur ne ko fartaxib mu ñëndikul yow Muhammad yow taati bis ba dana ñëw asama asamaan bi duxaanin ci saxar de bés boo xam ne asamaan si yàlla dafa koy soppi saxar loolu ma tax si sa bii ni gi aji bir saxar soo xam ne yaxsan naasa dana muur nit ñi haasa lii haasa bu nu mbugal la xali mu di aji métti rek tey de mu ne waaye mu ne ko ah waa Makka sa mbokk yi dañoo gëmul alquran ñoo sikk alquran moo tax ñu nekk ay waaye mu ñëndi ku leen rek yow Muhammad ba yoo xamee ne asamaan si mooy pés penc ci mandara bis bi asamaan si def saxaar muur ñëpp mu nekk mbugal mu métti ci ñoom de moo tax loolu mooy duxaan jee moo tax waa ji Masruux dafa wax ne dañoo toogoon ci Abdullah ibn Mas'ud benn bés ma nga sukkandiku woon benn waay daal di ñëw ne ko yow Aba Abdurahman dakkantal ma ne ko am na benn waay buy nettali ca bunt dëkk ba mooy xesakat yi rek yàgg na ci àddina waxtaankat yi bu nekk ci buntu dëkk ba ca Kanda di wax ne aayaay duxaan ji dafay ñëw bu dikkee jàpp rooy xéefar yi daal di jàpp jullit ñi ñu mel su ko mooy al doxaan boobu dikkee mooy rey jullit ñi mooy rey xeefar yi kon jullit ñi moom mu jàpp ne mu soj mel kon soo ne Abdoulaye ibnu Abdoulaye daal di jóg di toog mer nag ne yéen nit ñi ragal leen yàlla koo xam ci yéen dara ci mbir mi na ko wax de ku ci xamul dara na noppi kuy wax na nga wax la nga xam waaye wax loo xamul kere say wax rek def sa xisa loolu bàyyi leen ko ragal yàlla de fal yàqul bihim maanaam man la ku xam na nga wax ku xamut na nga wax la nga xam te nga yem ca yi rek xisakat yi nekk la ñu wax ko defee ko dañuy xoromal ci na bés boo xamee ne asamaan saxar si dikkal na muur leen nag mbugal metti le xaasa li xaasa bu mbugal mu di aj metti de rek rab ah fartaxib ñu ko defee ñu ne rabbana bu yow borom suñu su ko defee mbugal moom bu ñëwee nag bu safar safara soosu tàng dëkk bi tàng jër ak saxar si dañuy daal di ñaan yàlla nag nekk wuññi ñu mbugal mi de rabbana yow borom suñu ixsif na ixsif yàlla na nga wuññi mi de inna naka nun boo ko defee su boobaa muum nañ de boo ko defee dañ gëm yàlla de ñu ne yàlla nag wuññi ñu mbugal mi rek ko defee dañ gëm de ah te xamuñ ne foofa pencum yàlla mandarga bis penc yu mag yi ci la bokk su boobaa boo xamante ne mbugal bi ñëw na boobaa moom buñ gëmee it gëm xamatu fa njëriñ de moo tax alxuraan ne an naa lahum ana fu ñuy jëlee asikra waaru jëriñoo gëm yàlla ma fu ñuy fëlee ni gëm yàlla ga foofa nag foofa waaru xamatu fa njëriñ de waqad jaawu dikkal na leen rasulun ab mu binul ji aji leer ji bidal de te mu ne ah, foofa lay dem ba àllaaxira nga naan boo ñu tegalee ni nañ gëm xamul njëriñ de moo tax am naa lahumu zikra ana fu ñu jëlee ak waaru foofu ba koy jëriñoo waqat jaa mooy nag mën a nekk rek waqat jaawum te dikkaloon na leen bit moom dikkaloon na leen rasulun ab yonent mu di aj bi ci leer leeral de am na yonent mu di kon ca leeral leen ba mu leer nañu de a gëm buñ toogee ba fii nag c'est trop tard de su ma tawalaw topp ñu dëddu àndugul si yonent ba waqaaloo ñu wax ne yonent bi day muhallamun muallamun ab jàngalekat la majnuunun bu dof mu ne ñoom bañ leen yar yu ab yonent ba ñu waroon a gëm yàlla moom lañ dañ koo weesu ab yonent ñu war leen ñu war ko gannaaw naan kii day jàngalekat bu dof la waaw jàngalekat bu dof la muallamun maj majnuunun ab jàng ab jàngalekat boo xam dafa dof kii waxam waxi dof la innaa naka innaa naka nun kaasiful xasaabi way huñi lañ mbugal ma mooy mbugalam xiif aji néew de ñu ne fañ xiifee ñëw màkk nag loolu ci mbugali àddina yi la fu ñu ñu mbugalam xiif ma xaye falko ko ñu ne ah, mooy jamono ju néew ñu ne mooy keroog badar badar it fu ñu la ñu mbugalam xiif ma ci mi leen ci de innakum naka yéen ah yi doon way dellu ngeen ci kéefar bo bu leen yàlla fu ñu le ba leen yàlla nattoo mbugal pour jàjj leen ci àddina xiifal leen bañ tuubee yàlla fu ñu xaafal mbugal ma lu néew waaye dañoo dellu xaat daal di kii daal doon de bu dee ca Badarit ba ne yàlla dimbalee bañ nañ jàpp ci jar-jar am na ñuñ ci xewi waa leen xam na ñoo xam ne dañoo dellu xaat ne kéefar de yaa ma nab tisu bés ba fàttalikul bés ba danañ danañ téye ñun yàlla yàlla ma ngi ko tuddee inna barsa rabbika mooy sa téyeeg borom mooy sa mbugalam borom rek inna yaa ma nab tisu bés ba danañ ñu téye ñun yàlla al barsatal kubra téye gu mag de ñu ne mooy keroog badar de inaa naka nun yàlla mun taxe mu ne way xalak way faye way faye ko ne ci ñoom de mooy way xalak lañ leen bés buñ téye téye gu magga te mooy keroog badar xam nañ ne yàlla xalak na leen de ñu rey ñaar fukk jàmm su fekkee ne ngaa fii waaye bu fekkee ko fi de àllaaxira nag yow ma nafsi bés ba nañu kubra téye gu magga te mooy yaamal xiyaam fa la yàlla mbugal na safara ñoom xéefar de inaana ko ñu yàlla mun taxim way xalak leen ña nit ci safara wala xat fatan naa walaay nattu woon nañ qablahum ñeneen jiitu yoon ñeneen jiitu ci ay xeet xeet de ni ko ñan mu ne ko ñan nga mu ne xaw ma firawna nit yi firawna ya yàlla nattu woon la leen de wa jaawum ti dikkal la leen rasulun yenentu karimun bu dee ci tedd te mooy Moussa Moussa ibn Imran ñëwal na leen de leneen ak leneen li dal sa nit daloon na ñeneen jiitu ji ay niti niti niti Moussa niti Firawna ya de Moussa ba mu ne an addoo ne leen joxe leen li li ci man xeeb a jaam yàlla yi Moussa dikk ne Firawna bani Israël yi nga xam ne ñoo ko def ay jaam an addoo ilay indil jox ma xeeb a dalay jaam yàlla yi ñu libéré ñu libéré de bàyyi leen inni naka man lakkum ci yéen rasul yonentu la mu aminul buñ buur bu di aji hóor man yàlla ma yonent bu hóor laa ci wax yu gi de wa an laa ngeen bañ a rëy rëylu ala lay ci kaw yàlla de bu ngeen rëy ci yàlla bu koy weddi de inni naka man aatikum dana ma dikkal leen wala hindi naa bi sultaan ci walay mu biir ci aji biir indi naa leen ay preuve yu leer Moussa dem ci Firaw ne ko dama bëgg nga libéré bani Israël yi nga defee jaam bañ ñu bëggal ay jaam yàlla lañ te it man sa yonent yàlla laa ab yonent laa buñ hóoru ca yàlla ci kaw ndax man indi naa la lay wu yeneen yàlla ma yónni de wa inni naka man Muusaa mi xostu wéeru naa bi rabbi ki borom sama wa rabbikum ak seen borom an tarjumuuni bu ngeen rayat ma de bañ <coughs> ko bëggee rey Muusaa fa ne man làqu naa ci yàlla mi nga xam ne moo leen moom moom leen ba du ma mën a rey de moo tax mënuñu ko rey moo tax ab jaam yàlla bi saa yu làqoo ci boromam rek te muy dëgg ci moom yàlla dana ko làq de <coughs> ay caay noonu rawatina boo xam bu taxawee ci dëgg way lam tuminu ndem gëmu leen lii ci man fa'tasiluni sori leen ma bu ngeen ma gëmul nag kon beddee ko leen ma de bay ma de fa daa mu hoo moom ya Musaa rabbahu boromam Musaa bam jibañ la xoote ba ba yëfee ba yëfee ko bam naagu nag mu ñaan rabbahu boromam ne anna awlaay naka gaa yi xaw mu nit lañ mujjëm ni di ay kàccoor de ñii sama nit ñi ay kàccoor lañ gëm yàlla de kon fa asri yàlla ne ko fa asri rañaanal bi ibaadi ci samay jaam lay leen ci guddi yàlla ne Moussa kon takkal say bagage yaag ñi la gëm bani ngeen génn dëkk bi de ci guddi sa gaay géej leen wa géej gi leen war lekk te fii amul géej kon dañ fekk géej ga de baaru ko lañ ware moo tax mu ne kon génn rek ñoom dañ la topp waa bani Isra waa axta xibti yi bu ñu ngi may Firawna ba génnee bu xeewoo rek dem nañ dañ départ nañ dañ soppali mu topp na ma labal leen ci géej ga moo tax ne ko fasri bi ahli bien baadil bien baadi laylan ay yaan ak sama jaami ci guddi innakum naka yéen muttaboon way topp ñu topp ngeen de Firawna dana leen topp xarem bi buñ dikkee nag euh, tegal sa xeer wi ci sa xeer wi ci géej gi rek dana xal fukki mbedd ak ñaar bani fukki fukki gi ak ñaar ngeen dem bu ngeen ba genn mu Firawna dana yëkk geex gi subaa nag rocce saxet bi rek di géej gi lekk leen de mu ne ko waxtu rek bahil albahra géej ga rahwan mooy aji dal ngeen jàll yow yow sa yow nit ñi de ca géej ga innahum naka ñoom nag innahum naka ñoom naka firaw nag gàngooram jundun lël lañ muxraqun yi di way lab de lël mooy mbooloo mooy lab lañ moor firaw nag ak gaayam ñoom dañuy lab ci géej ba xasam de boora ca xeet bi rek ñoom géej ga lekk leen ñu deex de bu ne boor nag daal di mel ne fa tënk fa tënk kese foofu nag yàlla nag daal di benn seen gannaaw nag gannaaw bañ labee may lim nag ne kam tara ko walaay bëri na buñ bëree buñ baxee ñu bari sax mi ci tool bay ne ay tool yu bëri ci isbit wax yooñu ak i sewnde wa surwaañ ak i mbay wa maqaamin karimin ak i jotaay yu tedd amoon nañ fa ay jotaay yu tedd mu na ba mu xala ko bàyyi ko mag nitam ña ay lañ bàyyi ci firaw lañ bàyyi ci firaw na lañ bàyyi isbit ci ay xeewal xeeti sarne yu ak seen xeeti mbay ya ak seen yi ñu xamoon ak yu kawe yaak seen jotaay yu baax yëpp seen salaam yu rafet yëpp perte ko de wa maqaamin karim ak tooguwaay yu tedd wa naxmatin ak xeewal ak xeewal goo ko kaanu nekkoon nañ fi a ca ya faak yéen di way di way xewur ci di way di way foytu de yàlla joxoon na leen ñoom firawna ak nguuram ga lëlëm ba lañ xamoon ne Égypte kenn xamul nu mu toll waaye keroog lañ ko ñàkk de tool yaak sewne yaak mbay maak jotaay yu kenn yëpp ak xeewal gi ñoon xeewul yëpp ah dund gu nooy lañ xamoon dund gu naat kaanoo fii xaa nekkoon nañ ca faaki ndee foytu ca de di xeewu de ñu bàyyi lépp ay perte nañ ko ñaala ko bu nekk saalika bay ko taxaw ñu taxaw ka saalika na laay def képp ku ma yàlla de waaw suñ képp ku ma weddi de waaw ras naa ñu doon loo loolu yëpp seen kër yëpp nag ma doon loo ko bani Israël mi itam ñaa niti Moussa niti niti Moussa di koy doon jël ko xaw nit axarina yeneen te mooy bani israila bur fa ma bakkat firawna de ak ñoñam fa ma bakkat jooyut alim ci ñoom asama asamaan wa ar rek suuf ñoom de bañ dee asamaan jooyu leen suuf jooyu leen ñu ne tax nag kon asamaan suuf am na ñuy jooy am na ñuy jooy ñu ne waaw julit bi bu dee asamaan daf koy jooy ñeen fukki guddi ñeen fukki fan suuf jooy ko ñeen fukki fan de ñu ne suuf si jullit bi barab bi mu doon sujootee yàlla te jaama boobu sujootutu fa dafay jooy ne gisatuma sama sama sama jaama yàlla bi doon sujootal yàlla ci sama kaw ñeen fa gisatuma ko ñooy ko ñaanal ko de asamaan si jullit bi jëfam yu baax yi doon yëg ci asamaan malaaka yu di ko yéegal fay man dey asamaan jëf yu baax yi leer yi doon yëg sama kaw ji ji bàyyi ko ci fukki fan nag daal koy soog a nag ñeneen yàlla bale ko ñeen del loolu mooy yàlla ne ñii nag ñoom asamaan jooyu leen suuf jooyu leen ndax julli ba suuf di leen jooy te amuñ tiyaabu malaka asamaan di leen jooy de ma def ma bakkat jooyut alim ci ñoom asamaan asamaan ada suuf ñoom suuf jooyu leen asamaan jooyu leen wa maa kaanu nekkuñ woon mun seren di way di de kenn yéexewu leen de ba xala ko di kenn ñoo rek kenn mu ñëw leen dara wala xat na musal nañ ñun yàlla bani israila ah yàlla ne ma musal bani israila nag mooy mooy Musa ak ñoñam minal asaabi ca mbugal ma al muhini bari borom ak doye de ndax mbugalam lab dafa lay doye dal de yàlla ne musal mbugalam doye dal ma nag de min firawna ca nga ne mbiram doy mooy lan firawna fa leen loon doye dal di rey seen doom góor seen jigéen loolu doye dal de loolu mbugalam musal bani israila min firawna mu daal di koy mu daal di koy tekki nag mu def ko badal mu ne min firawna ci mbugalam ci mbugalam firawna innahu naka kaana nekk na aaliyan di aji mbëru aaliyan di aji rëy rëy boo xam de firawna dafa mbëru de minal musrifina bokk na ci yàqkat maa firawna ci yàqkat yi yi bokk de wala eh, wala xad ixtarnaahum tànn nañ leen ala xel mi ci xam-xam alal xaalim ci bindee fi jamono seen yenn waa bani israel yàlla ne tànn naa seen ci kaw xam laa ko teg xam-xam laa ma tànn leen seen seen mbindeefi jamono de alal xaalim ci mbindeefi seen jamono waaw tey naa ñu jox leen mi la ayati ci ay kéemtaan maa fii law nekk na balaaw mu biinun bu dee aji bét jox leen mi ci ay kéemtaan maa balaaw xeewal mu biinu bu dee aji bét de inna awlaay naka gaayile la yaquula danañu wax in hiya dee dund gii in hiya déet moom illaa mawtatuna l-uulaa mooy dee gu njëkk rek de wa maa nahnu bi mursaliin kenn du ñu dekki mu ne ji sax am na ñoo xam ne dañuy wax ne dee de moom xam na waaye dee fen waaye dekki xamul de in hiya déet moom illal mawtatul naa daal suñu dee gi algo de njëkk xas ba dunda boo dee ay jeex na wa maa nahnu déet ñun bi mursaliin ñu way dekki de kenn du ñu dekkal de taxaw jox fu ñu taxaw faatoo ñu ne ah waaw fekkoon dekk am na kay ñun bañ sañcee fii Kaolack ba léegi ñaata nit dafa ci Mamadou bi léegi kenn dikkeegul kon dekk amul ñu ne faatoo indi leen biyaa bàyyi naa suñ bàyya indi leen suñ ba suñ maam ya deexoon in kuntum saadiqiin wax ngeen dëgg ne fekkee dekk am a ahum ndax ñoom xayrun ñoo gëm ñoo waa Makka am xaw ma Tuubaa wala nitu Tuubaa nit Tuubaa yee ñoom itam ay nit lañu woon yoo ne dañoo ko nekk ci montagne yàlla xalak leen yàlla waa Makka yi ak waa Tuubaa ñu ci yaram gën a la gën a la ci nam te ñooñu xamoon nañ kattan yàlla fa leen a xalak de ata wala si na min xaw lek ñe leen jiitu woon ñii waa Tuubaa ak ñeenti jiitu ci ay xeet ñu ci gën foor ñu gën a màgg ñoom ñëpp de ahlak naahum yàlla lim ci bëgg daal mooy ne waa Makka yi xéefari Makka yi ak waa Tuubaa ñoo xam ne ñu ci jëpp katan ak i pexe ñooñu leen foofu de waaye ñoo ñëpp ahlak naahum ak ñe leen jiitu woon ak ñe leen ci xeet yi ak la ahlak naahum xalak nañ ñu ñëpp innahum naka ñoom kaanoo nekkoon nañ mujrimi di ay kàccoor ay yéefar ko ñeen foofu wa sadaqala balaxa rasul sa ta fa lamna sid ya raqibu kulla xayrin fiina wa kulla aybin waarihida fiina la anta min aadat min aldiwani fadlika naja min sufli ijam habaydaka daifa zalimi min haulai anta xayru rahimi matin matin samlana walmuslimina wala tuhawwijna li aydi alalamina bi taaji taalimin wa in wala la musal a